dalati leen ak jàmm ci li gën a fes ci xibaar yi ci site internet bi dañu koy dooree ak wàllum football ginnaaw président de la confédération africaine di Ahmad Ahmad moom mi nga xamante ne nag daal nañ koy suspendre juróomi at yoo xamante ne rek FIFA daal na ko koy acc bu ñu sukkandikoo ci commission d'éthique bu FIFA bi nga xamante ne nag daal dinay suspendre juróomi at yi nga xamante ni rek seenu président confédération africaine bi di Ahmad moom nag li ñu koy tuumaal rek bokk na ci li mu ko 185 millions d'euros yoo xamante ne nag daal dina koy def ab détournement de fonds ginnaaw dirigeant malgache bi nga xamante ne nag daal dinay def 60 ans ca bopp football africain bi li ci mars atum 2017 ginnaaw bi nga xamante ne nag dinay ñëw nekk ab candidat ci deuxième mandat boobee nag nga xamante ci lañ ko placé ci garde à vue ginnaaw ay soupçon yoo xamante ne rek amal nañ ko ci kawam daal ne nag ci juin atum 2019 mille diwaanu ko Paris dañaa njortees ne dafa lekk xaalis boo xamante ne xaalisu ko moomeel ci wàllum politique ginnaaw coowal Mimi Touré mi nga xamante ni nag benn fan ci weeruk novembre ci atum 2020 la ñu daal di tekki ndomba tànkam fa nga xamante ne moo di ca conseil économique social et environnemental Mimi ture mi nga xamante ni nag saa si le tembe moo ngi jàkkaarloo ak ëllëgëm moom mi nga xamante ne moo fi nekkoon ilimaani jëwriñe ginnaaw bi nga xamante ne nag moom moo doon traqué nit ñi ci bien mal ak gi ca waxtu boobee nag ñu ngay xamle ni Mimi Touré mi fi tongaloon lenn ci ay responsable politique saa si tembe nag yat wa daal nay dal ci kaw gannaawam ginnaaw Idrissa Seck ma ko wuutu ca bopp conseil économique social et environnemental mu ngay lëxmat nag lépp lu jëm ci wàllum gestion di yorin ba nga xamante ne Mimi woon na ko googule kër waaye nag ñu ngay xam ne ni guerrière bi di Mimi Touré ginnaaw waa APR nag ba nga xamante ne rek taxaw nañu fas yéenee jàkkaarloo ak kii di Mimi Touré di xam leen di ne moom fas yéenewu cee daw yotaa waaye dina jàkkaarloo ak lenn ci ay responsable daal di wane ñàkk xëyu ndaw ñi laaj daal di samp ginnaaw benn projet de finance bi nga xamante ne nag banque mondiale daal di nay génnee woon lu tolloo ko fanweeri milliards francs CFA daal di koy jébbal nag dix-sept départements yu nekk ci diwaanu ko Sénégal ginnaaw boobule projet nag nga xamante ne lu tolloo ko trente-deux mille apprentis ñoom a nekk ci benn atelier boo xamante dina dalal huit mille personnes ci diwaanu ko Sénégal ginnaaw état du Sénégal nag l'observateur xëy daal di samp laaj li muy laajte rek mooy ñaari milliards yi nga xamante ne nag bëggoon nañ kaa décaissé ci 30 milliards yooyee ana fan la jaare ginnaaw bi nga xamante ne nag njiitu réew mi président Macky Sall daal dinay taxawaat tey jile rek fas yéene ubbiwaat beneen kuréel kuréel gu yees goo xamante ne nag ndaw ña danañ ca mën di liggéey di ci gis seenuk bopp kàddu yi nga xamante ni njiitu réew bu France di Emmanuel Macron daal dina koy yëkki nag daal di koy tekk ci caricature bi nga xamante ni teg nañ ko ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waral na nag ba sélectionneur français gànnaar moom nag daal dina yëkkati ay kàddoo ginnaaw ci dimanche bi la ñu génn ca Europe 1 ba ñuy wax ci wàllum sport moom nag daal dinay jàpp ne président français bi li mu def du leen rek lu dul daal di leen di mettre mal à l'aise ñoom ñi nga xamante ni nag ay doomu français lañu te daal di nekk ci réewu Afrique yi rawatina fu ci mel ni ci diiwaanu ko Arabie Saoudi ca waxtu boobee nag mu ngay xamle ne kii di Emmanuel Macron kàddu ya nga xamante ni yëkkati na ko daal di koy teg ci kaw yonent bi loolee doonu lu mu rafetlu war a teg ci suuf du samay kàddu Hervé Renard nekk sélectionneur bu Arabie Saoudi moo yëkkati yooyu le kàddu président de la république Macky Sall ci ab réunion boo xamante ne nag alliance pour la république di APR ñu ngi ko doon amal ci àjjuma gi la ñu génn ca diwaanu ko palais de la république ki di njiitu réew mi président Macky Sall di nay def nag ab annonce bu doy waar bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien mi relaté boobule information ndaxte nee na nag ginnaaw Idrissa Seck mi nekkoon ci ku jékk politique mag boo xamante ne mu ngi ci kujjeg politique gi dafa séenee ñëw ànd ak moom ci mouvance présidentielle bi coow laa ngi mel ni tulleeg màlli fi nga xamante ne moo di ci diiwaanu ko Facebook ginnaaw leen ci ay groupe yoo xamante ne ñu ngi koy créer groupe yooyee bu fekkente ne ñenn ña dañ fay ñëw di fa waxtaanee ña ca des di ca liggéey ñeneen ña ca des di xool ana naka la ñuy def ngir am ay financement waaye nag ña ca des di fa sàkku ay conseil sa si tembe nag groupe yoo xamante ne ay cas la ko tuddee bés bu yàlla sàkk cas daa dina ciy am xamante ni ñoom ñoo di célébrité yi bis bu yàlla sàkk ñuy wuññi seenu sutura lañ leen di waxal dëgg la am déet waaye lu mu ci mën a doon rek ñu nga cay waxal ay nit ba ñu ciy gis seenu bopp di ko coow suba ngoon guddeeg bëccëg réseaux sociaux yi nag bu fekkente ni dañu kaa def ngir yombal wàllum jokkalante gi waaye tamit wàllum liggéey gi ak télétravail gi saa si tembe nit ñi ñu ngi koy utiliser à d'autres fins di ci yàq ay deru doomu aadama ca waxtu boobee ba tey ndaw ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy bàyyeekoo ci réewum Sénégal di tukki tukki gu jaarut yoon yoon di dem fële nga xamante ne moom moo di ca Espagne tribunal constitutionnel espagnol bi nag daal di nay approuvé jeudi bi la ñu génn rek ngir ñu daal di def ab refoulement automatique maanaam fépp foo xamante ne app immigrant clandestin nga nga daal di fay bàyyeekoo ñëw ci seenub dëkk ñoom nag am nañu sañ-sañ daal di lay dàqaat nga daal di génn dëkk ba ginnaaw bi nga xamante ne nag tribunal constitutionnel bu espagnol bi nag daal di nay autorisé loolee état du Sénégal rawatina ministère bi yor lépp lu jëm ci wàllum affaires étrangères d'accord ci akuk mooma Abdou daldi wax ci mbirum Aïda Ndiongo ginnaaw ordonnance du doyen bi nga xamante ne nag jox nañ ko ko fukki fan ak ñaar ci weeruk novembre gi ñu nekk ca waxtu boobee nag ñu ngi ko toppee lépp lu jëm ci wàllum produit phytosanitaire yi nga xamante ni nag Aïda Ndiongo loxoom da cee laale waral ba magistrat bi daal dinay renvoyé nag ki nga xamante ni nag moom moo di ex sénatrice libérale bi ca fa nga xamante ni rek moom moo di ca correctionnel ginnaaw bi nga xamante ni chargé tegu ci kawam daal dinay diis loolu bu ñu sukkandikoo ci les échos yéenekaay les échos yéene kay daal ne nag li ñu koy toppee rek bokk na ci wàllum escroquerie ginnaaw juge bi nag daal dinay jël la procès verbal nga xamante ni mu ngay njort ni kii di Aïda Ndiongue bokk na ci faux et usage de faux waaye tamit lépp lu jëm ci wàllum mbind moo xamante ni jaarut yoon te mu doon jël yooyu les documents doon ca amal ab transaction di ca fay ay koppar mbir moomee nag mu nga amoon ci atum 2013 ginnaaw parquet bi nag la muy reprocé kii di Aïda Ndiongue mooy nag dafa daal laal xaalis milliards ci suñu ay koppar <laughs> laataa ñu koy bàyyi nag ñu ngay xam ni première instance daal dina koy condamné ba daal di woon ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo di cour suprême bi ñu daal koy jox ab ordonnance de confiscation de ses biens lépp lu jëm ci wàlluk moomeelam ñu daal di ciy teg loxo waaye nag ñu ngay xam ne ni cour boobee daal dina koy relâché nag ginnaaw bi nga xamante ni cour de répression de l' enregistrement illicite di CREI yi moom nag daal dinay xam le ni lu tolloo 47 milliards moom la Aïda Ndiongue daal di tëdd ginnaaw bi nga xamante commission spéciale bi daal dina koy controversé fas yéene ko nag joxoon ko ab ordonnance de non lieu boo xamante ni kii di ay Aïda Ndiongue du tëdd lu ni mel saaga yu ñaaw ak kaddu ak image yu ñaaw yi nga xamante ni nag série bii di infidèle bis bu yàlla sàkk ñu ngi koy wane ci seen séquence yi waral na nag ba ONG bi nga xamante ne moom moo di Jamra daal dinay jóg Mame Makhtar dal daal dina nag saisir na ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo di waa Sénéra ngir ñu daal di xoolaat série boobee bi ci incarné rôlu Ndey Kumba daal di yëkkati ab saaga ndey dagg ko ca boobu série ginnaaw bi nga xamante ne nag Mame Makhtar Gueye mu ngay xamle ni série boobee dañ ciy faral di ci wone lépp lu jëm ci wàllum LGBT waaye tamit lépp lu jëm ci wàllum pornographie verbale actrice yooyee dañ koy faral nak di ko wane ginnaaw bi rek benn xale bu jigéen di yaa awa gis nañ ko ci benn séquence mu daal di génnee nag ab benn tampon boo xamante ni dafay wane ni daf cee gis ay règlement rek nga boobule Mame Makhtar Gueye nag daal di ne jot na saa si le tembe nag sénéra daal di dakkal boobule téléfilm wala rek ñu daal di ciy jël ay matuwaay yu mucc ayib leneen lu ñu war a jël ay matuwaay du leen rek lu dul lenn ci ay téléspectateurs yi nga xamante ni nag ñu ngi doon seetaan 2STV ginnaaw invitation bi nga xamante ni nag moo doxoon ci diggante Ouzin Keita Pawlish Mbaye ak 10 000 problèmes li yéem ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo di téléspectateurs yi du leen rek lu dul ne ab benn góor jigéen moo daal di woote en direct coow la daal am pëccaxoo daal daal di am 10 000 problème ak ki nga xamante ni moo di Pawlish Mbaye di ko yàq lu mel ni xeme te naan ab góor jigéen la waaye nag li yéem ñëpp moo di ki di Ouzin Keita xaw di dëggal boppam tey xam le nag ne waajoojee ab xaritam la waa ji sax mu ngi wuyoo ci turu Adamo moom mi nga xamante ne nag mu nga ca diwaanu ko États-Unis doon wootee Ouzin Keita di xam le ni waajoojee ab xaritam la waaye tamit yàgg na ka teral fépp fu mu jaaxle rek daal di koy woo ca la rappeur bi nag di 10 000 problème yàq waajoojee lu mel ni xeme di ko xamal leen lu dul yàq ndaw ñi waaye ñoom nag duñ ko ci bàyyi benn yoon ba tey ñu daal di des ci wàllum people ginnaaw yaa awa jéey ak aba mi nga xamante ne nag ñoom ñooy animé émission bi ñuy woowee kàkkataar ca émission boobee ñu ngay xam ne nag ne yaa awa ak aba non stress dañu daal di am ab problème ci enregistrement émission kàkkatar bi mujj ca diwaanu ko TFM bu ñu sukkandikoo ci les échos yéenekaay mi mu ngay xam ne nag ne aba mujjuta àggali sax boobule émission dafa daal di gàddu ay ay tànkam génn ci émission ba li ko waral naka saa si le tembe kenn xamu ko waaye coow lu metti dox na ci diggante Aba ak Yaa Awa ci fàttali rek ñaari animateur yooyee nag ay xarit lañu ba dañu koy wone sax ci écran bi ñu daal di wax ci ojo fuité bi nga xamante ne nag Omaro yi mu ngay wax ci digganteem ak soxnaam si mu takk di Ayo balde ak ginnaaw Omaro Gueye nag ba muy xamle ni moom takkul ab nit ab jinne rek la daal di takk waxtu boobee nag Omaro Gueye mu ngay xam ne ni bakkanam daal di dese te ruu boobee nag daal dina koy yëkkati jox ko ki nga xamante ne moom moo di Ayo Baldé ginnaaw bi nga xamante ne nag discussion boobee Omaro Gueye doon amal mu ngi ko doon am digganteem ak ki nga xamante ne moom moo di Ketchup ca Canaba ab benn élève boo xamante ne mu ngi nekk ci classe CM2 moom la ñu fekk mu daal di ñàkk bakkanam gone googee nag nga xamante ne rek dafa daal di jël buum daal di takk ca baatam bu ñu sukkandikoo ci ay x Canaba mu nga nekk ca département bu Linguère ñoom gone googee la ñu daal di jël buum takk boppam ca benn garab gone gi nag mu ngi am ci lu tolloo ko fukki at ak ñett ginnaaw bi nga xamante ni nag woo nañ gendarmerie ak ndawal sapeur pompier jël nañu koor ba yóbbu ko ca l'hôpital waaye police daal dina ci ubbi ab l'enquête ndoy baan mi nga xamante ne nag daal dinay sol ab robu avocat di plaider ki nga xamante ne rek moom moo di Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké nekk porte parole xalif général des Mourides kii di ndoy baan nag daal nay taxaw di xam le rek daal dina Serigne Bass Abdou Khadre lu ko waay wax tegoo ko ci dëgg dëgg tegoo ko ci yoon ndaxte moom nag ab ndaw kese la ndaw boo xamante ni dafa daal di jottali te nit ñi nañu bàyyi kàddu yi ñaaw yi nga xamante ni ñu ngi koy yëkkati di ko teg ci kaw kii di Serigne Bass Abdou Khadir Mbacke mariage u Daba Ndiaye mu VIP sañse saa sile tembe nag nga xamante ni fanweeri million la ñu ko daal di jox may ku njëkk mariage boobee nag ñu daal di gis ab mariage boo xamante ni neex na trop ndaxte li ko war a rek gis nañ lii di sécurité bu doy boo xamante ni Daba Ndiaye daal dina koy taxawal ñoo xamante ni ay garde machine boo xamante ni kii di Daba Ndiaye daal dina ciy wàcc sajjoo ay or ba fees waaye tamit sol tissu boo xamante ni c'est mariage boobee nag nekk ab mariage royal boo xamante ni rek kii di Daba Ndiaye bu VIP sañse daal na koy amal ci week bi la ñu génn lii moo daal di buur xibaar yi di leen jox dig daje ëllëg incha allah.